street too. Prophet Sallallahu What is the difference between mind? What is the difference between mind and brain? For your own understanding. this is another time, another orchestra talk. Tey nii laa doore nag ci Ramadan bi. Ramadan Mubarak ah? ah. ok thank you. tey nag tey tey tey sama sister moo introduce Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa Amina.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 فسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فشوى والذي قدر فعدا والذي أخرج المرعى فجعله كساء أقوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يحرم جعر وما يخشى قد اليسرى فذكر إن فات ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى التي يقرا الذي يصلى نارا قبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلى من تزقى وذكر اسم ربي فشلى وتوسرون حياة وتوسرون حياة الدنيا fa innal walal aaxiratu xayrul sada. anyway you have tried. man maa tudd Abdoulaye Sarr. Abdoulaye Sarr yaa ngi ok. yaa maa ngi ok waaw. ok Abdoulaye. Mm-hmm. yonante bi. papaam naka la tudd. yonante bi. Mm. papaam. non boobu waxuma ko. yaayam naka la tudd. yaayam. waxuma ko. ñaata Sarr ñoo nekk si Quran bi. non bari na. lan mooy kat difference between brain ak mind. within. lan brain ak mind. brain mooy mind biral la dees na ko. ban saar nga mun a jàng. bëri na. cuusal beena nga jàng. non dafa bëri. Sadio Sadio Sadio. Sadio bi papa am naka la tuddoon. Abdallah. yaayam naka la tuddoon. Aminata. ah ok lan moo nekk between brain ak mind. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا في البيوت غير بيوتكم حتى يسلم إلى أهلها ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون آية بو جانغاني آية بو جانغاني سيبان سورة لا سيبان سورة لانيك dama sona dama sona. Ramadan Mubarak. Thank you. We you same. Okay. How many surahs are in the Holy Quran? Ah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaayam naka la tuddoon? Amina. Papaam? Abdallah. What is the difference between brain and mind? Brain and mind. The brain run faster than the mind. How? how many surahs are in the Quran? You say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 Amin. Amin. Thank you. All right. Onno netteɗa? Jan ko Alpha Ba. Alpha Ba. Yeah. Alpha no suuma yeru ndu. Ah meɗen mayru no. Ɓeɗan ene yette baɓɓe ɓe hulata suuma ye ka. Ah li noon gonga. Aha. Yeah. Ko ko ko ko suraji jelu woni ka Alqur'ana. Suraji jelu eh. ko 114 sura. Nulaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono nene makko ene teno. Ko ndon noon mbiyeje Baba makko no abdallah ko ɓenne e mum joni uh, wiɗa ko cuuraji temedere sappo e nayyi wonɗo waw joni e nder ɗi noon temedere sappo nayyi suuɓo gooto janggamo e mim ɗo wawi ɗe boyi kono gooto rek janggamo joni ɗe wawi wadde falage o ah, janggen falage qul ho allahu allahu samadou e astahfirullah qul <laughs> ausu bi rabbil ata orfila qul awde séréer Ah, waaw baax na waaw ah, ok qul a'uuzu bi rabbil falaq min ah. sharri maa xalaqa wa min sharri xaasiqin idaa waqa wa min sharri nafaasaati fil uqadi wa min sharri haasidin idaa hasada Ah, min sharri nafaasaati fil uqadi wa min sharri haasidin idaa hasada jaaraama ah, waaw jaaraama ramadan mubarak <laughs> jaaraama de salaam aleykum on jaaraama honno Ah, ɗon honno maakete ɗon mbiyeyaw ngine ne ajeso ok awa ko ko suuraji joli woni ko alqurana

lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yonente bi yaayam naka la tuddoon eh, xam ma yaayam yaayam nag papaam nag ah. falak de mun naa jànga kul rabbi naas waaw ah, jàngal falak boobu <laughs> lu tax mënuloo ko <laughs> boobu kul rabbi naas maaliki naas ilaahi naas min sarri waswaasil kannaas allazi wasiwisu fi suduuri naas mina jinnati wan naas kulaaɓe raɓe falaka min sanoma kala munoma bowna billahi man ma yitoro boubacar boubacar diallo walla ba sow sow pullo jeeri no way ala no way tan ala jantom man ok boubacar waaw ah, ko sowraji yol woni ka alqouran eh, mi anndaɗum ɗum ñata sowraji woni ka si alqouran non xawma ko nag amuloo ko ok yonente bi moome num ok bar suura nga man Fatiha. ah Fatiha laa mun a. jàngal ma Falak. Falak Fatiha laa mun a jàngal sama bro la. jàngal Falak rek non Fatiha laa mun a jàngal. jàngal tayal Falak. non Fatiha laa mun a jàngal jàngal Fatiha ñu def. Fatiha. auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa laddaalliin amiin. soo mënuloo jàngal naas. <laughs> bro bro nga daal rek. Ibrahim Ibrahim waaw ah. ñaata suura ñoo nekk si Quran xamu ko de yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam papaam naka la tuddoon xamu ko yaayam naka la tuddoon xamu ko waaw ah. ban saar nga mun a jàng mun falak falak ah waa ah. jàngal ma falak ma dégg la auzu bi rabbil falak min sharri ma xalaka wa min sharri hasidin idaa waqa wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri haasidin idaa hasad ak ban nga mun a jàngal ah dede legui da nga e ci kaw tabati ya da ah egal 20 ci kaw il a e e no egal ci kaw 20 nice ya tuna naka malik kebe malik kebe wa malik kebe yang yama yaga har no karo malade no mangi ci angi taxaw di ma xar der xana fa mo sen dega nugo kebe der fo so fi sen dega man senegal la deug senegal nga deug 114. ah. téeméer ak fukk ak ñeent. téeméer bi yaayam naka la tuddoon. yaayam. Hmm. yaayam xamuma ko doon ah. papaam naka léegi si téeméer ak ak ak ak 14 yooyu noonu 114 saar yooyu. waaw ah. ci benn nga jàngal ma ko. boo bëgg. tànnal boo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 لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم congratulations man Jimmy Jimmy naka Jimmy waaw indi tori indi nga amee ah soo neexee na ko Jimmy Jimmy aca yaa ngi remember boobu <laughs> ah. ok ma ne ah, saar ñoo nekk si alquran ñaata saar ñoo nekk si okay wonodaan fotin suras yes okay wonodaan fotin suras yes yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam papaam naka la tuddoon papaam mu ngi ko ooyee Abdullah yaayam naka la tuddoon yaayam ko ooyee Amina ah. ok si suura yooyu tànn ci benn nga jàngal ma ma tànn si benn waaw mun naa si tànnal soo bëggee fukk benn rek benn rek baax <clears throat> fi xusri illa alladina amanu wa amilu wa tawasaw bil xaqi wa tawasaw bis sabri jërëjëf thank you saraxallahu daat naa maa ngi fi rek daat yaatuna naka man kaali ba kaali ba ah saar jelle bi je saaro men mbiƴa siyata de a ok kiila kiila kiila mouhamed sallah alih w sallam a mbama to a famatoɗum abdoulaye sayi sura kilin karanje ɓan alqouran o kono bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina rahman rahim maliki yaumi dini iyaka nabudu o iyaka nastainu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين امين امين ساين ساين فلك فلك رنج اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين ولا سورة الفلق اه وتا سورة الفلق دي اوكي دار يا ترى نغا بابي لا غنا دين دار يا ترى نغا سالو سالو اوكي اوكي سالو ليك يا ñaata saar ñoo nekk si alxuraan bi. ñaata saar. waaw yii loolu mu xaw ma wax dëgg ah. boobu ah, ma benn saar si alxuraan bi benn ah loolu benn rek benn rek. benn rek ah moom taal Faatiha kon. Ah. ah ah ok léegi. ah yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaayam naka la tuddoon. Soxna Khadija. papaam naka la tuddoon. non Fatou Fatou Ndiaye. jërëjëf. tudd Alaaji. alaaji waaw alaaji yow lan nga day def fii nga day def man maa dee jàngal boy si nu ñuy caméra yi bi ñaata saar ñoo fa nekk ah wax dëgg yàlla du ma oustaz de soo ma laajee si caméra ma tontu la waaye doo ma laaj lu ma xamul yonente bi eh, xaw ma ko yaayam naka la tuddoon xaaral ma oyal la suñu oustaz bi rek yaayam naka la tuddoon wallaay du ma wax naa la ko man affaire caméra nga may laaj cuusal ma cuusal ma si Quran bi nga jàngal lima jang si sabi nak mom moom na way wax deug yalla nak du yow laay ñëw di koy recital fi de. waaye ko nga caméra rek na ñëw. waaw loolu de mën na ko. waaye comme comme caméra bi ni comme comme ak les bi ak yoy noonu. le ñu dugg si biir. waaw na leen. ja ito di maadu. de Musa Jawara. ah sunkoroɓe ñaadi. alhamdulillah. kila la Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ala bama todum amina. ala fama toɗum eh, abdallah sara jeluleɓe courant courano kono eh, nakaramamam fota oto ah. sa en sar kilin kara ñeɓan courant o kono no sara kilin kara kilin o kilin doram ok se kulhuwa fo no ah. kulhuwa kulhuwa ta tije hmm. ngamum fo sara santo e eh, koye nakaramamam jam fa sa i lefta abarka salamu aleykum bro imam naga def imam nakam booy maa ngi baax. imaam ah ok. waaw waaw man rek naka. jaay ma rek yaatu na naka. Fatima. Fatima ñaata saar ñoo nekk si Quran bi. 116. yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam papaam naka la turam. Abdullah. yaayam. Amina. jàngal ma benn saar si Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم صدق الله العظيم كهف كهف jërëjëf mën nga ko translate. Ah, <laughs> dem. boy non to be honest nag gis naa ne Gambia jigéen yi ñoo gën a jànga de wax ma góor yi jànguñ nag waa jigéen yi ñoo gën a jànga man babukar babukar Camara. babukar ñaata suura ñoo nekk si Quran bi. eh Korka boy soo ma laajee ma réer boy. 144 la boy. 144. mënoo dem yonente bi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam naka la naka la yaayam tudoon <laughs> Amina papaam ah. Ah. ah waaw. Ah. waaw waaw wéy nañ ko sa booy waaw mooy lu ma la wéy nañ ko sa booy ah. léegi si saar yi cuusal ma benn nga jàngal. waaw ban nga bëgg a waaye ma cuus bu yomb rek. cuusal ma dégg ah booy waaye ma cuus Fatiha booy. ay kay yaay Fall. waaw Amori Dia. delloo naa la si. jërëjëf waay maam see ñu ngi amee benn Baye Fall suñu office. waaw maam see Ngom. xam nga ko. Ah, doomi doomi ndem si yàlla ah, ah, Moussa Afia Ngom waaw suma mbokk la kay exactly jàngal ma benn suura suura rek tabbat yadaa abii lahabin wa taba maa agnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hammaalatan al-hatab fii jiidihaa hablun min masad boobu ban suura la boobu ban suura la ah ay dund amalatuñ suura déedéet ah ok jërëjëf yaay ok may feeñ yaa ma naka TikTok bi. ñu si kawam. Ah, TikTok nii nii rek. ba yaga TikTok ok ma sa TikTok handle bi ku gars yi follow la léegi nii. yaa ma jaalo bon jeeje yaa jaalo bon jeeje dem leen ngeen follow ko léegi léegi nii. yaa ngi kula. yaa may fay. yaa ñaata saar ñoo nekk si Quran bi. Hmm, man nag soriwuma woon. Ah. Mhm. yonante bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam papaam naka la tuddoon. soriwuma. mi jangani ha to yaayam naka la tudon mi jangani tigi tigi nani legi ciusal ben sar nga jangal ma no yalla ya fano la mi jeji ma ak lo de tiktok yeb jang mi jeji ma andi menen tiktok ko fonu won ton kono gurana men fijirta bro naka eh boy eh. bro ya to naka man mohammed mohammed yeah ok mohammed naka ramadan ah ramadan ma ku ramadan mu ramadan mu ramadan mubarak yeah ramadan mubarak ya tamit mané mm-hmm. ñara sar ñu nek ci qur'an bi ñara sar ñu nek ci qur'an ah. sura Um, from Bakara to Nas, <laughs> boy, I know there are 6,666 verses or surahs. No, no, sorry, 6,000, but there are 6,666. Ada ñoo fa nekk. Ah no, surah how many? I know the verses. 6,666 verses. Wow. Uh, ah, that I know, but surahs I cannot tell. You know, yow xam nga bu gën a bari waa xamuloo bu gën a tuuti. Ah waaw. Ah. waaw. Yonente bi Muhammad sallallahu alayhi papaam naka la Uh, Amina waaw ok yo yo yo nga ne vases yi six thousand six hundred and sixty six ñoo fa nekk léegi cuusal ma benn suura si si vases noonu nga jàngal ma um, arrêté la di yuqasibu bi di fa arrêté suura bi naka la tudd <laughs> waaye suura bi noonu kor ga xanaa la mu suura bi am na tur suura bi am na tur ah waaye man makiyatun la wala madaniyatun non non suura bi moo xaw ma dama dina la ma dina la wàccee wala makka la wàccee. waaye xam naa suura bi naka la tudd. ah non suura bi kay man lu ma xam loolu laa nekk du wax nii ma ngi jàng suura yoo koy wax nga xam. naka la suura bi tudd. korka booy bu ma dawloo yoo tamit booy. Ah. سورة بي اه يبقى ما جنغال ات ليست ات ليست رمضان لك رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يلؤ اليتيم ولا يهد ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون سورة بي نخلت هو هو كوركا بوي ترينا بوي وير جول بي نخلت تيابو تيابو بي يلا براوي نعرف يا ترى نخا عبد الله بابو اوكي عبد الله بابو dama la laajte benn question ci Quran bi ñaata Quran ñaata ñaata suura ñoo nekk ci Quran bi 114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 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمنوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم يا تانك اوكي سورة بنا I cannot say no ñaata suura ñoo nekk ci Quran ñaata lan suura non loolu laajte nga ko ku jafe ne wuti ilimaan bi ñu laaj ko ko ah? ilimaan bi nañ ko ko laaj ah. waaw war nga ko xam wante pël xam ko ah. pël mi nga xam dañ see dañoo jàngal si gannaaw bug bi. laaj leen ko. waaw léegi si saar yooyu si si ok si Quran bi cuusal benn nga jàngal ko. inna anzalnaahu. inna anzalnaahu ban suura la nekk suura bi naka la tudd. non fàtte naa suura bi. waaw jàngal ko ma dégg. inna anzalnaahu fi laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahrin tanazzalu malaa'ikatu warruuhu fiihaa bismi rabbihim min kulli hamzin salaamun hiya hattaa matla'il fajr. suura bi naka la tudd. inna anzalnaahu. yaa nga gis Kora man li ma ne si yow rek du dara sa laajte gee nee. jërëjëf <laughs> sa laajtee nee. thank you. waaw taalibe taalibe taalibe bu murtat laa de. waaw waaw taalibe bu murtat. luy murtat man Pël laa de. man Pël murtat mooy murtat mooy. taalibe bu dëgg nga nekk nga nekk taalibe ba weesu taalibe yaa nga nekk bad boy. Ah. wala bad man. bad man waaw. ah ok. waaw non waaye yow moom yow moom taalibe nga xam naa ne benn gis naa loo def si gàmmu bi du ma du ma ba léegi taalibe de ah. ma demee foofu waaw taalibe taalibe laa soo ñëwee fii su ma ñëwee fii eh. delenkaa laa <laughs> waa ok léegi yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam papaam naka la tuddoon Abdallah yaayam Aminatu Sadiya eh, yaayam Alimatu Sadiya moo ko yar yaay yonent bi nag wax dëgg moo ne yàlla boobu nag moom pour nit ñi Amina Amina Amina Amina mooy yaayam Alimatu Sadiya mooy mooy moo ko yar. ok waa léegi. Amina mooy yaayam waaw Amina. waaw baax na léegi léegi ma ne. ñaata saar ñoo nekk si Quran bi. ñaata saar. waaw. one gis naa ne nag gis naa sa taali yow nag sa karama ko si nangi ma. Ah. billahi karama ko li ñaata saar xamoon naa ko nag. Ah, xam nga wax naa la léegi taalibe bu murtal la yow murtal nga yow. xaaral xaaral accept accept naa ko su nekkul one hundred and thirty one hundred and sixty. waaw parce que. ok téye woon naa ko de. ah baax na waaye fan yii rek benn tey yaa ngi saaraan de. déedéet déedéet. waaw ah, ah, non baax na. xaaral junne. waaw junne ak téeméer déedéet déglu ma loolu aaye yi maa ngi ñëw si aaye yi junne ak téeméer ak fanweer ak aaye yi alxuraan bi téeméer. Eh, ay sa yayi saare ceerno baba ɓe riwete galle eh, waɗala talibe bo murtal riwete galle talibe bo murtalla ɗahanit eh, kiram way waɗnala talibe bo murtalla ay wawi reño ɗahanit lolu lolu wahnala ko ok wahnala ko wa léegi eyi léegi jangama bena 300 300 dan bente yama non lolu foog ma foog ma foog <laughs> de wana ko ne taalibe bu musal la naa ko waay bi alfa de alfa alfa sa yahi sare sa yahi sare ɓe oh. riɓete galle yo yo ana amlo sa waɗde keɓe nge seeɗan alfa waaw xam alfa duɗal nga duɗal no ka galle moon daaraɓi naka ɓe fii xale yi amul affaire yi duɗal affaire yi ah, ah, alfa ah, léegi léegi jàngal ma benn saar yee benn saar. waaw benn rek. waaw yow tamit na bul ma wax benn saar. benn rek déedéet xaaral ma jàngal la aaye léegi saar tuuti saar am na saar yoo xam ne dañ gudda ba mu ëppa. waaw léegi jàngal ma aaya kon. waaw léegi auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا إدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا waaw waaw léegi ñaata suura ñoo nekk si Quran boobu nag kon ka barke alxuraan noo ma bettee dama para <laughs> ma fàtte ko. jërëjëf <laughs> bro xam naa xam naa xam naa ñaata suura la aaye yeeg yëpp maa ngi ko amee woon waaye. jërëjëf da nga ma béy tamit tiit na. soo bi nag fii la moo jeexee duñ amati duñ amati bu ne comme bii. fii moom bii moom wax leen ne. da nga xam nga boo ñëwee force. wax naa la ne su ma demee fale taalibe laa fii delenka laa. foo ma fekk nag da ma fekk si si si place yi delenka moo tax affaire bi mu réer ma mamat eh. loolu moo tax affaire bi réer ma. Hmm. waaye happy Ramadan nag. waaye sa caméraman waay la nag.